cinq secondes, il va en compter 104 voix. <laughs> Encore une fois, cette prouesse-là, il va, ouais. <laughs> il l'a réussi. Donc, euh, <laughs> donc peut-être Fatou, vraiment, man, hmm. euh, je, je, suis vraiment inquiet. Je, suis, je, je, suis inquiet pour Yo, cette euh, loi-là. est-ce que même inquiétude nga am ci loi bi? Niñ ci farlo ni mu gaawee en 3 jours, on peut boucler ça yaakaar ne weesu na ñun li ñuy gis ni. Bon, toute façon mooy euh, ginnaaw ay jàmm ah, <laughs> noonu nga ko gisee. ak lu mu mënti demee ginnaaw ay jàmm. peut-être que bi loi amnistie bi c'était pas Macky Sall moo ko waroon def peut-être président bi ñëw moo ko waroon a def quoi. fekk euh, maanaam euh, c'est un peu maladroit. Hmm. tu vois mais ginnaaw ay jàmm. mais comme euh, niñ ñu koy waxee dëkk bi bon xam nga état. Hmm. état bu la tooñee moo am dëgg. bu tooñul moo am dëgg. raison d'état. <laughs> état amul kilifa. <laughs> mooy kilifa ñëpp. te amul kilifa. te kooku benn fas c'est la dictature <laughs> tu tu sais euh, am na ki créé la république. xam hmm. nga ñoo ñoo ne ils tu sais que monde bi dafa am ay réalité yu muy doxee. Hmm. tu sais que l'état c'est le représentant du diable. en quelque sorte parce que yàlla ba muy inspiré doomu aadama pour lu ko gouverner royaume la ko jox. république c'est la création de l'homme bien sûr xam nga dañ naan le roi est au-dessus des lois et des est-ce que yaa ngi dégg wax ji mais république ah. ah mais y en a par parce que Firawna yàlla indil nañu ko ci alxuraan quoi <laughs> tu vois Firawna ñaata yoon la dem ak yàlla yàlla ci day wax ak Moussa Moussa wax ak moom mu. mu violé règlement yi nattu ñëw mu woo Moussa ci suuf ne waxal sa yàlla bi mu teggi affaire yi ma wàññi sama taal Moussa wax ak yàlla yàlla teggi natt yi fi reprendre ak ay ay yoon yu bëree bëri ba jekk ñëwaat <laughs> ba ci dernier scénario bi ci lañ ko labal te dernier scénario bi sax bañ koy labal dafa mi ngi doon tudd yàlla Jibril moo moo fatt gémmiñ gi parce que dama xam ne bu tuddoon yàlla rek mucc mm-hmm. <laughs> comme comprendre nga pour te dire que l'homme est Dieu l'homme il est un peu complexe mm-hmm. donc euh, Macky la man ci sama lecture lii benn genre forme de baalo baalonte ak tabaski la xam nga tabaski da ngay xaar da ngay nit waaw nit ki nit ki mu leere ne yaa ko tooñ nga war ko dem baalo ak mais ngay xaar tabaski mm-hmm. dem profité ba xam nga baalonte ak la <laughs> tu vois mm-hmm. pour man Macky Sall la li mu def nii mooy nañ baalonte ak comme maa ngi waaj a dem te vraiment bëgguma def naa njombe yu bari te bëgguma dem wàcc ko sama ginnaaw mu may rattrapé nañ baaloon te àq. sauf que baal bi dañ ñu ko forcé. dégg nga ne la buur moom bu la tooñoo. boo sañ te bañ. baal boo sañ bañ. <laughs> buur mais grand en fait. buur euh, moom on avait Macky Sall avait une belle occasion en deux et un. yaakaaroon ne parce que deux mille vingt et un il lui restait quand même quatre euh, trois ans mandaam jeex donc amoon na temps. Est-ce que cette oui, loi d'amnistie-là, est-ce que s'il avait, <laughs> voilà, est-ce que s'il avait été à l'origine de cette loi-là, à travers un dialogue d'abord, en ba mu ne il a compris ce qui s'est passé, mm-hmm. et que comprendre li ko jeunesse bi wax, mm-hmm. su woote woon dialogue déjà, mm-hmm. on aurait pu discuter de ça. Peut-être on aurait mis sur la table. La plaie était encore béante, comme ça c'était une plaie bu bees la. ñu xool ensemble comment on on va cicatriser cela. Mais bien sûr bi parce que tey ñu ngi ñuy des amnistie yàgg na am Sénégal. mais en 1993 d' donc euh, on a assisté n' est ce pas ñun on était encore des enfants mais bon mmh. l'histoire nous a raconté. Mmh. on a de vagues souvenirs que rey nañ fi ki nga xamante ni mooy maître Babacar Seye. Mmh. mais quand même il y a eu n' est ce pas un procès devant des tribunaux. Mmh. bi tribunaux yi prononcé wu ba jël ay nit. ñoo def defuñu. en tout cas selon la justice en ce temps là ñoom la ñu joxoñoon baaramu tuuma. mais c' après. des années plus tard, en 2000, euh, je me souviens plus, après, c'est après les années 2000, 2002, y a eu une loi d'amnistie, bon, mhm. n'est-ce pas, une proposition de loi. 2005, Donc, je crois. Voilà, mondiale. Donc, en fait, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y a eu d'abord la main de la justice. Même si on est qu'après, on efface les faits, peut-être voilà, euh, pour euh, réconcilier ou je ne sais pas quoi. Peut-être aussi. en 2005. Voilà, mais, Dara. fii nii les dix les plus de euh, on nous dit soixante dix morts man soixante dix je ne sais pas c'est combien donc déjà au moins il faut qu'on s'entende sur le nombre de morts on est en train de recensement correct parce que pour respecter la mémoire de ces gens là il faut ñu respecter la mémoire des gens léegi xam nga ñu euh, bon les quelques peut-être ils vont se limiter à soixante dix et je pense pas que c'est le chiffre formel Euh, officiel bu état du Sénégal joxe état du Sénégal joxewul soixante-dix c'est euh, les organismes et tout qui mm. des chiffres comme ça et Pastef je pense qu'il donne plus que ça mm-hmm. donc mais léegi ñooñu les autres familles là peut-être des victimes yi nga xamante ni on les a pas recensées qu'est-ce qu'on va faire ñooñu dañ leen di bàyyi ñoom ñoom ñoom damp gi ñuy damp ñeneen ñi. ñu leen damp les blessés ñi nga xamante ni ils ont ils ont vu tout leur patrimoine économique disparaître ah en une journée ah ou bien en quelques parce que taal kos la mu jeex donc mais loolu yëpp tamit ñooñu foog ñu wax ak ñoom ñooñu foog am nu état taxawee ak ñoom mhm. mais mënoo ñëw ne man nañu baalante et que yow si tu yoowoo tamit les responsabilités le différentes personnes qui peuvent bénéficier même mhm. ñooñu xamoo leen parce que état bi man vraiment chiffre officiel bëgg naa ko xam parce que état ba léegi joxewul chiffre bi nga xamante nit ñi mën nañ seen langaamu mhm. ne lii moo am les pertes économiques on nous dit que c'est à coup la laal donc yooyu yëpp tamit dafa doon ay questions yi nga xamante ni c'est des questions latentes yi nga xamante amuñu ci benn réponse à ce jour te day metti aussi ñu yeewu rek on nous met un package la comme ça xam nga une loi dugal ay bagages dugal dugal dugal c'est c'est bon par contre ça c'est le propre de Macky mm. euh, parce que quand il a fallu faire un référendum. il nous a mis un référendum sur 15 points. Ah. points moi-même j'étais pas d'accord sur sur tous les Mais, mais on avait le choix entre voter oui, mais oui ou voter non. Oui, mais as en fait, tu as 15 points. Mm -hmm. je, suis d'accord sur 5 points mm que je ne suis pas d'accord sur 10 points, qu'est-ce que je fais Je vote oui ou non je suis, oui pour les cinq points, je suis non pour les, pour Qu'est-ce qu'on fait Je fais une balance, je me dis 10 à 15. Mm donc je préfère dire non. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon, il a l'habitude de mettre euh, euh, les petits plats et les grands plats ensemble. jaxase ko rek torchon ñu mu ngi nii waaw. <laughs> lancez-vous soit ngeen plongez avec moi ou bien vous ne plongez pas. mais après c'est c'est c'est loi d'amnistie là c'est un peu la difficulté. dafa am lu il a brûlé des étapes yi nga xamante ni sénégalais dañ ko doon xaar. les victimes aussi grand man mon plus grand problème c'est les c'est ces gens qui. d'ailleurs les familles victimes comptent manifester euh, euh, samedi prochain. pour euh, naqarlu loi bi. Hmm. wane ne aussi ànduñu ci du ay ndàmpaay la ñu soxla ça ils l'ont dit d'ailleurs depuis bi communiqué conseil des ministres génne mercredi passé wax ne adopté nañu loi bi euh, ñoom ci la ñu wax ne du ay ndàmpaay parce que milliards sax bu ñu leen ko joxoon mënta far bakkan bi nga xam ne moo dem wala ki làggi à vie te ñu war a def enquête mu xam ne kii moo ko def lii yoon def na li war ci ci ci kaw. Euh, par contre Fatou moi j'ai juste un problème avec euh, les familles des victimes. Amnesty yi ñu mu àndal ci xeex bi je leur dois un grand respect moi je toujours d'accord que les gens se battent pour leur droit mais pourquoi attendre le samedi. le samedi oui que j'allais dire dafa parce que ak bés bi ko waxee ci olof da xaar ba jaan romb. nga hmm. topp ca watet ba. ça c'est c'est quand même un problème. c'est demain qu'il fallait marquer leur désaccord. kan moo leen di ko quoi kan mooy. kan kan mooy coordonné famille hmm. mais suba moo gën en fait. symbolique demain moo gënoon symbolique quoi. voilà moo gënoon euh, pointé quoi. ñu defoon ko suba. on nous met un zoom sur l'assemblée oui. Mm-hmm. on nous dit que voilà vos députés sont en train de vous trahir. Mm-hmm. parce que moi je pense que l'amnistie c'est une trahison. Mm-hmm. c'est mon avis. Mm-hmm. je suis formel. Mm-hmm. je pense que ils vont nous montrer euh, on met un zoom au niveau de l'assemblée. voici vos députés qui vous trahissent. voici les gens qui refusent d'être trahis. qui mais après le vote et comme je dit Fatou moi je suis, fâté, que, que va passer entre le, jour du vote et on vote mercredi la marche il y a deux jours mercredi samedi samedi mercredi euh, je sors aller de mercredi à samedi pour rapprocher les jours parce qu'il y a tellement de jours entre ouais, ouais. tu vendredi mm. donc il y a au moins trois jours yoo xamante ni mooy dox seen diggante est-ce que c'est pas aussi pour respecter délai de d'info en pas demande d'autorisation. mais autorisation tu as combien tu as combien de jours. pour je pense que c'est trois jours francs mais c'est trois jours francs. oui mais s'ils avaient introduit je sais pas moi je, je pense s'ils avaient introduit depuis. le euh, lendemain du conseil des ministres. pourquoi pas pourquoi pas au moins <laughs> dinañ ko dab ci semaine bi quoi soit si le président avait joué un peu peut-être qu'il avait demandé à ce qu'on fasse ça jeudi eux ils auraient déjà manifesté donc mercredi bu ñu manifester pour dire qu'ils sont pas d'accord bon en tout cas image yi day dans la mémoire les gens vont dire ah hier les familles des victimes ont désapprouvé mm. nest pas ce qui aller se leen dóoroon ay lacrymogène. oui mais grand. moo tax ñuy euh, je pense que oui. <laughs> non mais mais bon aussi malheureusement on est dans un pays où le euh, préfet il peut refuser quand il veut. dire ouais, avec le vote de l'Assemblée. l'ordre public avec le vote de euh, l'Assemblée je me dis même peut-être peut-être qu'il qu'il aurait refusé hein peut-être qu'il aurait dit euh, avec le vote de l'Assemblée euh, ils vont voter le mercredi donc vous vous voulez créer du désordre oui, oui. moi je vais pas vous autoriser à faire cette manifestation là mais bu ñu leen ko bañalee it il pourrait se retrouver dans une grande salle faire un point de presse dire nous on a voulu exercer notre droit constitutionnel mooy ñu def ay ñu def manifestation wane ñun suñuy ñoñ ñi nga xamante ni boom nañ leen ci manifestation yi xamul kan moo leen ñun bëgguñu ndàmpaay dañu bëgg ngeen wax ñu avant tout kan moo ko def su nekkee ñu manifestation boobu am mais ils n'ont qu'à faire un point de presse ils vont dire que nous on avait convoqué une manifestation ce mercredi ils ont refusé mais on va faire un point de presse dans tous les cas day gën a euh, maanaam il faut pas le faire quand il est chaud quoi mm. mais malheureusement bon je mais nag ils sont toujours dans le droit c'est eux qui voient ñun ñëpp dañuy wax suñu xalaat rek mais si j'étais un membre de de du collectif, voilà, victimes, tout ou bien j'étais leur conseiller je leur aurais dit euh, toute façon de ne pas le faire le samedi mm-hmm. parce que y a trop de jours après mmh. n'est-ce pas yi nga xamante ni vote bi te vote bi vote bi ces gens ils vont tout faire les députés que vous voyez là mmh. les députés béni oui oui hein ils vont faire passer le le nu <laughs> la loi mm-hmm. c'est clair facilement c'est da non Cheikh kañ position am. c'est